thank you salaamaaleykum góor gi salaamaaleykum hmm. Hmm. góor gi ah <laughs> yaa ngi forbat de <laughs> koorooy def nii kooroo lay def maa ngi fi rek ça va sant yàlla ba ah, def ma dogu koor gi koor gi jàpp waa ah, ah, koor nag <laughs> koor mhm. nga looloo tax nag yàlla di ñu ko sant sa bëti basak ngay wóobleeg mu lay roofi nelaw nga mel ni kuñ pikiir waaw yàlla yàlla ngir sa xel mi di dem ci yàlla waaw xiif mar mhm. war a mën a lekk gis lekk geeg naan gi nga nga bañ ko lekk mhm. waaw mais sant yàlla rek yàlla la moom def rek ah. yàlla ñu yàlla bindal tuyaaba waaw dama laa wóolu woon mhm. euh, sama benn xarit bu nekk fii daa am benn xaalis bu muy xaar waaye wiir maa lañ ko ko war a defal mu jóge dëkk ba ñëw ba léegi tëcc naa nag fu ne ñu ne ma daal yow rapide nga ci yëfi këyit waaw waaw yow daal mën nga accélérer këyit daal sa liggéey la eh bien moom foo nu wutal ko benn këyitub judd sama morooma nag mag la xam naa soxla woowu ko woon da daan bay di yot xaalisam di dem ak ñëw mais xalaatul woon ni bés dana ñëw këyit tënk ko këyitu ko tënk dañ koy wutal këyitu judd wutal ko di dantité wutal ko nene nene yaa bi waaw mu mën a ubbi compte bi compte bancaire bi pour nasaraan si wéegal ko xaalis bi waaw dafa instant daal. d' accord d' accord donc en fait loolu mooy sama liggéey. waaw waaw loolu moom neel alhamdulilah. alhamdulilah naa ko ko defaral même pas une semaine. Eh lépp pare mën nañu ko defaral kayitu juddu utal ko carte d'identité. Hmm. ubbil ko compte bi. Hmm. lépp normal. Hmm. voilà loolu moom amul benn. ñaata la donc 500000 francs rek pour yow. xam nga génn wàllu million. ah mais góor gi loolu da nga koo da nga koo xeeb ngay réel 500 booy kon man lan laa ciy am. ah kon yow courtier nga. sama xarit la waaye bëgg naa lu ma ci am. non non non góor gi bu kon laaj ko 750 000. attention mooy lan yow laa war a wax attention ba nga ñëwee def ay rasta laa la waroon a bañ a wóolu mbaa doo tux. père lii du dara lii style la rek rasta bi taxul may tux taxul may naan sangara taxul may. nga may laaj 500000 parce que sama liggéey la. da ngaa dof wala da ngay bëgg a dee. yow da nga koo mën kay da nga koy laaj 500000. mën nga may mënuma ko. waaw léegi kon fay ma li ma lay laaj. loolu li doon tey këyit 500000. c'est parce que mënoo ko man maa ko mën jox. ma li may laaj 200000 la am. 300000 fa laa yem. 200 300 demal. deux cent 275. 200 laa ma. kaar kaar yi léegi guddi ñëw fi ma jox la 100 boo indi këyit yi ma jox la 100 c'est tout. garaaw problème mais nag yow yaa tax ma wàññi ko quoi. booy yow rek ma wàññi ko. booy xam naa la. xam naa affaire bi nu mu demee dëkk bi neexul te jàlloo amul këriñ booy tiit di dee. non père <laughs> bul dugg ci yooyu di dee xam naa la yoroo fi mu toll <laughs> waa dara aja ñëwal sax xam ay këllam ti kookoo joxal ma toppatool ma kayit yi xam naa fi nga dëkk xam nañ la ci koñ bi. waaw danaa danaa fexe ñu la champ. waaw waaw. Euh, Baye pardon Baye. Kuba maa ngi siyaar. non non moom booy papier la. waaw booy papier waaw booy papier. bàyyi ngoon sama xarit la sunu dëkk yee jël la. naka coono yi alhamdulilah ah, xam nga nag. Euh, nit kenn du ko nëbbu sa bopp. dëgg la. waaw jàngoro moom danga koy weer mu mën a duxu. waaw wax naa ko ne kayitu juddu mosoo koo am. dëgg la.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 209 75. Notre site internet www.cefas-du6sénégal.com. carte d'identité yëpp te yow fi mu toll nii sa sa mbay da nga koo da nga koo def niveau international daal. Mhm. waaw sa mbay moom àdduna bi yëpp xam nañ ko. yow xam nañ la foo xam ne yow demoo fa. dëgg la waaw léegi nag moom na seetaan si ñuy jëw jëmi jëmi jëmi jëmi ndax fan yee dégg naa waa Paris bi ñuy def seen conférence de presse bi ñu ngi ma ciy tuddaale. Ah c'est international waaw loolu moom dëgg la. waaw loolu moom dëgg la. Ah, tawfeex la tawfeex la waaw waaw léegi nag. Mhm. Euh, dafa laaj deux cent mille ci pièces yi. ñeent fukki junni waaw. Euh, deux cent nga ma wax. deux cent nga ma wax. kii sama xarit la ah. genn wàllu million la laajoon. Eh? wàllu million la laajoon. ci këyit yi loolu de moom dina xaw a ma bëggoon booy nga toppatoo dara jox ma ma jox ko mu mu tàmbali. Samb man sama waxi démb mooy sama waxi tey. waaw këyit yi dama ne la. waaw lépp lu war ci këyit yi. Hmm. ci wàllu xaalis. waaw defal te bind. waaw man xam nga ne yoruma. waaw su ma yoroon. waaw bañu ma ko ci ndax këyit yi jaral na ma lu ne. waaw dégg nga ma ne nag lépp lu ci war defal bind. <clears throat> bu xaalis bi bu duggee ci compte bi ma jox la sa xaalis dërëm du ci tag dama dinaa la yónnee xaalis demal ba maag eh, bàyyi ngooñ laa tudd nag pour nga bañ a juum ci kayit sa tur dëggantaan sa tur dëgg bàyyi bàyyi ngooñ bàyyi ngooñ mooy sa tur dëgg bàyyi ngooñ am na ngooñ mi bàyyi ngooñ ngooñ ngooñ mi sa taf talu ko ca bàyyi ngooñ jaañ bàyyi ngooñ ci def ngooñ mi non kon kayit nag du mën a baax bàyyi ngooñ jaañ nee la quinze si c'est moi à Gassane mille neuf cent quatre-vingt-un gi soo ma yónnee eh, eh, juum mooy ñaata 7 ak 1 60. 1971 ak Gassane. mag laa di non bàyyi bàyyi bàyyi message. waaw. sa bul fàtte 100 000 mu ànd ak euh, toppatoo këyit. waaye mënoon fanweeri junni nag ñeent fukk bëri na de. sa waxaale yi xaw naa kii de loolu waxuma loolu waxuma bu ay nit toogee. ngay traversé di wane sa bopp bay kàcc. waaw fan la waa France def conférence de presse di tudd sa tur. ah yow seetaanoo France Inter barki démb. France Inter fu ñu koy seetaanee. déglu keroog bi def man. France Inter kenn du ko seetaan lu ñuy déglu ci rajo la xaaral ma la keroog sama benn boy moo toog di déglu affaire bi ñu ne Baye Ngooñ nommé le meilleur le meilleur cultivateur à Gassane. man dégguma bi mu ko enregistré ci téléphone am jël audio bi am booy bu mu ko seen booy bi ma ñëw mu dégluloo ma ko ma déglu xam ne loolu dëgg te effectivement dëgg la de sunu tund jolof atum ren la ma fa bay mbindeef bay ko gerte maa ko fu ëpp dugub waxi nopp ngooñ waxi nopp mbir mii daal boo ko li ma war a jox yëpp yëngu ko xam nga deux millions deux millions daal laa la war a jox. waaye dama ni ndax deux millions yi mooy sa pourcentage n'est-ce pas. waaw mais ah man kayit yi ma ci dox nag. kayit yi buñ paree ñu xool nee la bindal yow boo bindee. kayit yi ma ci dox nag. kayit yi lépp la leboo ma fi keroog fukki junni. ni daa am da nga koy envoyé dëkk ba ak benn. fukk ak benn ni da nga koy envoyé dëkk ba. waaw ah waaw. waaw fukk ak benn ak lan. la ak lan. xanaa bu fekkee ñeent fukki junni yi jox nga ko waaj muy fukki junni. muy juróom fukki junni ak benn. waaw léegi boo jëlee sa deux millions. waaw dinaa jëlaat yamoo ci loolu de lu xew yow doo jékki-jékki fii commandé fi dibi ne dibi daa nekk sa waa ku am gan. naanoo fi soow pii. ku am gan doo ñeete mbaa ñu ñee la sama kër gee ca dëkk ba de ba fu ñëwee loo fa lekk ci cere du ma ko facturé kon nag bu ma ñëwee fekk si la ndakaaru nga jox ma di bind ko fakir bu neexee bind ko waaw demal demal baax na demal demal loolu lekk gi baax na ah baax na waaye lu ma bind ba ca coppaandaw la daal nañ ko wàccee rek nga fay bi daal boo ko mënoon a woo ñeent fukki mu wàññi ko def def ko fanweer déedéet man bàyyi rek nañ ko toppatoo léeg-léeg ba million nu mu gën a gaawee nag moo gën waaw waaw baax na kii ah, 3 la ma a boo demee caayaam yëpp xaalis la lekk ci naanu ci rek xoolal ma lii rek heure eh, bi fi mu ñëwee nag dog na sama nelaw yëpp. ay laay tey koor moo mën a yare Vito cocktail une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille fruits yëpp ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yu sell te naturel puy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo jus bi sàppi nag oh, oh. dina yokk seen kàttan boole si vitamine rek la ñi bëgg soo naturel nag vito so exsident pour fête bu mënti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nag nekk si emballage yu civilisé te ak jus vito da ngeen am choix te ñu defaree ko fii ci Sénégal si anam yu naturel te sell disponible partout au Sénégal vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité Keur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison